Ah, maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ah di commencé ci bisimilah rahmaani rahim di présenté wu man maay madame Khayte Dieye madame Sey di présidente des femmes de la commune nord de Kër Massar. waaw tey boo gisee sama taxawaay euh, ci ci bis bi tey dama ci am cër bu rëy ndax ki jël li dooy nag présidente des femmes confier ko confier la ko dans la commune de Kër Massar Nord kooku lu mu def boo ci taxawul war nañoo wax ak yow. mu nekk nag sunu góor nekk sunu càmmiñ ñu nekk ak moom depuis 2010 ñoo fal monsieur le président de la république Macky Sall ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk ci moom fii ci APR avec l'honorable député maire Moustapha Mbengue ñun ñoo tax ba mu falu ba nekk maire ñun ñoo tax tam ci sunu kanam la nekkee député kon nag bu ma ñëwul ci bis bi gisuma kenn ku ci mën a ñëw ku ci mën a teew

avec lonorable député Moustapha Mbengue donc bu ñu toogee togg lu ñu togg ndax ñun ñoo togg ñoo dugg sunu dugg ñoo teg sunu cin ñoo rosi ñoo baaral ñoo tey ñoo sóor kon nag bu ñu demee ba yàq des si ñu indil ñu benn mouvement tegal ñu ko nii ñii ngeen di demal bu boobaa ñun war nañoo taxaw dëggal suñu bopp naam sax bu yàgg nañoo dëggal suñu bopp nag waaye nag lu ëpp tuuru nag parce que mbir mi dafay bëgg a ëpp waaw loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wàccul xam nga lu tax doomu aadama moo demee noonu parce que moom xaalis lay politiqué te ñun politiqué wuñu xaalis conviction la ñuy politiqué ñun dañoo yàgg ak askan bi moom mu yàgg ci askan bi def ak askan bi defanteek ñoom lu baax moom bi mu ñëwee nit ñi bees lañu xam bi mu ñëwee léegi matul deux ans. ñun na dañoo yàgg ci parti bi xam ci parti bi lépp muñ koy defal ci parti bi ndax jigéen am na noo xam ne boo ko defalatulee dootoo ko gis waaye ñun dëgg la ñuy àndeek nit waaye ànduñu ak nit xaalis waaw wala am-am. loolu saa dépend loolu mi ngi dépendre ji ni ñuy tëralee mbir yi waaw loolu mi ngi dépendre ni ñuy tëralee mbir yi parce que ñun tamit dañoo am kilifa muy l'honorable député maire Moustapha Mbengue ñun mooy sunu kiir laay ñun moom la ñu xam moom la ñu yàgg àndal mooy sunu ndëgër laay fu ñu ne fa ngeen jëm rek fa la ñuy jëm mais pour l'instant moom li ñu bëgg moom mooy li nga xamante ni sii mooy récépissé bi ñëw ci ñun waaw parce que ñun xeex nañ ko def nañ ko mérito nañ ko waaye duñu nangu ab mouvement jóge fële ñëw bëgg a jël li nga xamante ni si ñoo ko moom waaw jërëjëf